Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jiirë ngeen jëf état bi fa mu jëm a yi ci njëg yu bees yi ndoxamu fa ubbi l'observateur dimb ci altine ji ay agents yu ministère ñoo ngi woon ci terrain bi wàccoon ci marché yi dëkk bi ngir doon xool ndax jaaykat yi ñoo ngi jaayee njëg yu bees yu leen sant journal bi ñu xamal ne waa direction du commerce nee na ñu ci téeméeri jaaykat yi ñu dem juróom fukk ak juróom ñett ñoom respecté nañu mesures waaye am na ci ñoom lu mat ñeen fukk ak ñett yoo xam ne respecté wuñu ko commerçant yi ñu verbalisé ci dëkk ñoom ne alamaan l'observateur nee nañu waa direction du commerce nee nañu toll na ci ñaari millions ak millions cinq cent trente-cinq mille li ñu sisir ci ñoom ci ay marchandises nag yéenekaay bi nee nañu kenn xamul mu toll sisir nañu ñaar fukki tonni ceeb ak ñeent ak genn wàll sisir lu jege fukki tonni suukar ak benn juróom-ñaari tonni soble ak lu teg juróomi tonni pomme de terre 887 bidon yi diwlin yu 20 yi 132 bouteilles yu 6 yi 76 bouteilles yu 9 kilos yi ak 16 bouteilles gaz nañu waa service du commerce sisir nañu ci lu mat genn wàllu tonn jëfe dogal bi jëm ci njëg yu yees yi fa commerçant yi ba tax muy accélérer la cadence démb ci lañ doon def ab campagne contrôle doon xool ndax gaa ñi nañu mesure bu bees bi am déet marchandise mu bari la waa service national du commerce yu ñu alamaan te commerçant yi wane dëgër bopp bu ñu teggiwul seen tànk kaso na ci fekk ñu fekkaat wax ji ci xët mu njëkk la li journal bi bind moo di nguur gi dal na ci kaw jagat yi la sirikaay ne ko ñi état bi di wër ak di leen rëbb mooy commerçant yi a wàññi def nañu ko mu mi soble ba ci pompiteer ñaari téeméeri bi nee nañu gaay yi convoqué nañu leen réew mi quotidien ñu xamal ne wàññi gi njiit réew yi fa la mbir yee tage fa ne bi nee nañu moo di nee nañ buñ ko defee dañuy perte ndax jëndi fukk jaayee juróom xel xalaatu ko lu xel xalaatul moo xew démb ca jam ñaaju le quotidien xëy ko ci xëtam mu njëkk di ñuy wax ne jëf yi wëyug jëf mu am ci pont urbain bu jëm ñaajo sandarma yi nee nañu dimanche ci guddi ay samba booy ñoo duggoon ci seen watab 4-4 yoon seen ngànnaay bëggoon na dem dajji ay usines yi nekk ca jëm ñaajo sandarma yi yëkkoo fa bu fekk leen fa bandi yi di fetalante ak ñoom ba fa ca loru ndax ci ñoom wuyu yi am na kenn ko ci sandarma yi faat am na it si yeneen ñaar yu ñu ci teg loxo bës bi la journée tey la ñu dund keroog ca jëm ñaajo ay wuyu yu tegu der ñoo gàddu seen i ngànnaay bëggoon a dem song ji nekk ca pôle urbain bu jëm ñaajo sandarma yi gàntal seen i pexe ba ci ñoom kenn jàpp ca ñaar ñaar ñaw def observateur nee nañu moo am ne bu weesoo wuyu yooyu bëggoon a songi isin ya ca jam ñaajo am na it yeneen di bant yu ba jekk dem dajji magasin Auchan ba ca Zac fukki banti ak ñett la ñu woon ñoo ngi duggoon ci boto boo ne ci asek naa fa lañ ko sàcce woon yéenekaay bi nañu ba ñu yeggee ci Auchan ba dañoo soqi seeni fital dóor ko ci kaw visili visili fa nekk daw abal leen ñu dugg ci Auchan ba dajji koo far ba waaye ay këyiti kese la ñu fa fekk seen xol jeex seen yaakaar tas ñu caxat-caxatee Auchan ba Les Échos mi xibaar yi ci xëtamu njëkk dolli nañu ci ne yooyu ba ñu jógee ci Auchan ba dañoo dugg ci banque bu ne woon ca wet ga waaye foofee mënuñu woon a jote ca koofar ba jackpot ba ca Lonase journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko jàpp muy l'observateur di les échos di direct news ñoom ñëpp xëy nañu nga xamal ne liggéeykat ya fa nekk yokk nañu seenu payoor fukki junni lañu leen yokkal ku ci nekk ñoom liggéeykat yi ñu yokk seenu salaire toll nañu ci ñetti téeméeri travailleur ak juróom-ñett fukk Lat Diop mi ko def les échos nañu injustice bu amoon ca Lonase daanaka ñaar fukki at ci ren mo la corrigé l'observateur ñu ci ne teg na ci jël ñaar fukki bi ak juróom may ko liggéeykat yi ngir ñu dem seetaani coupe du monde ba ñu fay waajal tribune li mu bëgg a xam moo di ndax footballkat bii di Sadio Mané am na sansu football ca benn match loolee ab laaj la waaye am na beneenub laaj buy sampee ci xët mu njëkk stade yéenekaay li muy laaj moo di bu Sadio Mané footballul nees di lijjanti yëf yi record yéenekaay mel ne ko naan ñu ak luñ ciy def dee nañu gaaw ndax fi mu nekk nii caaxaan faaxee compte à rebours ba door na démb. NCA Assurance Gambrendi ñoo doon may li ci yéenekaay yi